mbokk internautes yi daleen ak jàmm mairie bu ndakaaru bataay ba dana sas sàpp te dina tàng te dina yàgg lool ci diggante nag ñaar ñoo xam ne dañoo bokk ci benn coalition muy taxawu ndakaaru ginnaaw keroog kii di baax Barthélemy Dias ba mu daal di nag euh, annoncé candidature am ci ab conférence de presse di wane ne nag publiquement moom mi euh, dana daal di nag posté candidature am ci euh, nag li nga xamante ni moom mooy élection locale yi ñu daal di ñëw te nag mbëbatul lenn lu daal di jiite mairie bu ndakaaru Ndakaaru ca jamono joojee nag ñu bëri sax doon wax ne moom mii di Barthélemy Dias nag amul accord ki nga xamante ni moom mooy Khalifa Sall Khalifa Sall mi nga xam ne moo jiite coalition taxawu Ndakaaru mi jàpp neen sax moom mi euh, damunagul a wax kenn ak di désigner kenn ne moo war a jiite nag coalition bi di taxawu Dakar ndax nag euh, fu mu toll nii talagu ko ndax nag dëju moom Khalifa Sall waaye nag euh, li mu xamle mooy ne tere kenn am ay ambition ndax nit ñu bëri niñ ko doon waxee mooy ni rek Barthélemy Dias ni mu defee wareew ko woon defee ndax ñëpp xam nañ ne nag ki nga xamante ni euh, moom mooy nag Khalifa Sall mooy leader ci biir coalition taxawu Dakar même bu fekkente ne loi ak yoonu dëkk bi dañ ko daal di tënk ba mënatul daal di présenté wu nag fu mu toll nii euh, faaw rek mu daal di nag joxe avalam ndax moom mi nag yaakaar na euh, taxaw Dakar moo taxoon sax ñu daal di koy taxawal ci ay jamono waaye nag keroog gisati nañu beneen koo xamante ni itam nëbbul benn yoon ay ambition ci wàllum nag local yi ñu jëm ci mairie bu Dakar muy soo Soham El Wardini mi nga xamante ni nag la ko teg ca bopp mairie bu Ndakaaru bokk na ci nag coowal Khalifa Sall bi taxoon ñu téye ko jamono jële ñu daal di nag génn di coowal caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru moom mi nga xamante ni nag moom mooy Soham El Wardini nag ca ba ñu tëjee Khalifa Sall mu yàgg mu daal di ñëw assuré li nga xamante ni nag moom mooy intérim bi ngir xaara xaarandee élection élection yaa yéex nag waaye moom soo Soham El Wardini keroog ci ab atelier de renforcement de capacité ñeel nag ay femmes leaders euh, ville de Dakar daal di koy organiser nag a la daal di waxe à haute voix moom mi tey jii nag am na mbëbëte itam ku ku mu ne rek ne bëgguma jiite mairie bu ndakaaru nag damay nax sama bopp dama bëgg jiite mairie bu ndakaaru bëgg naa nekk candidat te bëgg naa ñu votel ma ma jiite waat mairie bi nax nag dama jàppale nag góor ñi jigéen ñi nag buñ doon xool ñi nga xam ne ñoo gën a mën a jiite nag nañ jël jigéen teg ca kanam a góor ñi mënuñoo jiite jigéen ñi gën a mën a jiite te nag dama bokk ci ab coalition moo tax nag duma imposé sama candidature waaye nag lenn laa leen bëgg a xamal nag mooy ne ku ma daal di nag sollicité ngir bu mairie dinaa ko daal nekk ku ma sollicité wu ma xam ne nag yàlla moo ko dogal te fi teg ngir nag mu daal di jiite mairie bi maanaam ku fi coalition bi daal di tànn ngir mu jiite mairie bi nak dinaa ko jàppale waaye du tee ne ma wax leen ne bëgg naa jiite moom soo xamel waa ji ni la daal di wax mu mel ni nag bataille biñ doon wax nag ci Ndakaaru nag ginnaaw ñi nga xam ñoo faxe ci APR nga xamante xamante ni sax seen patron di Macky Sall waxagul kenn nag ki nga xam ne moom la ñuy désigné ngir mu daal di euh, porter bataille bi ngir jiite euh, commune ngir daal di jiite ville bu Ndakaaru nag waxaguñ ko ndax nag foofu tam am na enjeu ci diggante Alioune Ndoye di maire bu Grand Plateau ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diouf saa di maire bu Yoff Amadou Ba itam ca Parcelles ak tamit nag euh, ñeneen ñoo xamante ni jàpp na ñoom ñëpp bëgg nañu jiite nag Ndakaaru Ndiaye Dieng Diop te nag élection locale yi mooy déterminer nag naka la élection présidentielle nara daal di demee ci commune yu bëri waaye nag fu mu toll moom soo xamee wax di nag ak Barthélemy Dias boo moytuwul nag seeni xëccoo gi ñu nekkee nag moo leen nar a daal di dugal na soxaam ba tey moom nee na ma nga ci biir coalition taxawu Dakar ki nga xamante ni moom mooy Barthélemy Dias moom ci génn ci biir coalition boobu la gën a daal di jege dugg ci ndax nag moom mi benn coalition moom mënuta am ñaari candidat te yow këral yooyu nag mën na tax mu yàqal leen lu bëree bëri nag ci nañu daal di bëgg a conquérir ville bu Ndakaaru